ah de dengah, man tas nga man ah. man mi mom sama tek tekkaaral nga wër dëkk bi bépp sama xew wi waaw ñi sama kaw ah waaw yow loolu ana lan nga ma waxoon sa yëf sama yëfa sama naw la nag dinaa leen ko wax te nag waxi mën numbe bul ma wax maa ngi mën numbe moom yàlla la ak yàlla man baax na man li Ousmane wax sax giw ma ngi nii boobu ba léegi ma tax a ci buntu kër gi ñoo ko bokk asta waaw ñoo ko kay ah lu ngeen bokk ci lu ñoo ne lu ngeen bokk yaa Ousmane. waaye Ousmane ma jur ko nga naa ma lu ngeen bokk. ah déet da nga ne yéen ko bokk di ma yàgg daam. waaw dafa ne ma waa ñoo ko bokk dinañ ñëw kër ga xaar leen ci kër ga. Ah. waaw bokk. Ah. ñoo bokk waaw bokk ñoo ko bokk salaam yàlla la ko ah. maa ngi lay gërëm ñoo ko indi laay baati kàlla ñoo ko yooyu daal xam nga ñoo ko bokk moom ba nit waxi nit waxi sénégalais ñoo ko bokk. ñoo ko bokk waaw ñoo ko bokk maa ngi lay gërëm ñoo ko bokk ñoo ko bokk. Hmm. waaw. nee na ma waaw mu ne ñoo ko bokk la ko envoyé. waaw waaw ñoo ko bokk nit la wala lan la. nee na ma toogal ci buntu kër gi papa xaar 10 heures la ma waxoon maa nii di ko xaar. 10 hmm. heures da ca tegul. ah nee nañ xaar. 10 heures nee na kay. danañ ñëw ñoo ko bokk. lool daal la ma wax ne ma ñoo ko bokk ñoo ko bokk. réew ne lu ne ngay dégg ñoo ko bokk kay man ndoxam lu bokk. ñoo ko bokk de baax na nag ñoo ko bokk. ñoo ko bokk de gën ñoo ko féewaloo. loo waaw loolu la am na moom. ñoo ko xulloo. ah ñun de yàlla buñ ko féewaloo ñun danañ koy bokk moom. amiin ñun nañ koy yàgg bokk. amiin ñoo ko bokk moom. du ñii. waaw loolu lañ ci bind de ñoo ko bokk. waaw ñoo ah waaye daa mel ni ñoo ne nii ah taxaw leen fii la fii la fi ngeen jël ci ngeen ko bokkal a ngi. salaamaaleykum. aleykum salaam. Ah, doom na ngeen def. akal alhamdulilah alhamdulilah caakal. na ngeen def ak mbolo. kër ñoom Sanex laa doon. man la man la sa baay Sanex ñoo ko bokk la. waaw commande Ousmane. bi nekk Paris sama doom la ah, waaw ah. ne woon na ma waa ñoo ko bokk dinañ ñëw. ah ñëw nañ ko bokk ba tey yéen la ñuy xaar. ñoo ko bokk doom. waay ñoo ko bokk. ñoo ko bokk de ñu ne yéen dee ko bokk. ah kon nah. yéen Ba ba ba ba ba ba bay, bay, bay, bay, bay, ah doy nga waar daal bàyyil. ma jege ni si man bàyyil. bàyyi rek bàyyi bàyyi bàyyi. kon si ngeen fii ma décharger. bind. signature rek. ah ma ki ma Ba da nga Ah. bàyyil kees yi. Eh. ah waaye yow nag xam naa ne buy ma nag yaa ngi bëgg a doy waar nag. yaa ngi bëgg a doy waar nag. léegi ma dóor. dina def ñoo ko bokk dina ci jot. ñoo ko bokk ah, ñoo ko bokk incha allah ñoo ko bokk jërëjëf ñoo ko bokk ñoo ko bokk jërëjëf ñoo ko bokk ñoo ko bokk ñoo ko bokk. jërëjëf ñoo ko bokk. tey booy ah. eh, maa ngi maa ngi dem te ñëw dégg bàyyi di ma wax booy laa nga naan ma booy. man demet sa doom la. waaw kon nga bàyyi di ma wax booy. <laughs> wayu man lu man lu ba moom sañ nga di. waaw non li nga sañ sa ci boppam sutante sax lii sutante la de. Ah. Ah. dama kaa simple rek dama ko simple rek. nii nii. Ah. waaw. waaw waaw waaw takk nga ko fa de. ah yow moom moom foo Đám mày độc hại đấy Mới tôi biết Vâng Nhờ khổ bộ Con chán đã Nhờ khổ bộ Đây biết đã Nhờ khổ bộ Bà phụ con chán mày nhìn mà phép chúng đọc mình đây phép cái này Để nhau nhớ khổ bộ kìa Tại quá ở ờ, dưới chúng xuống đấy Phép chán đã Nhờ khổ bộ Mình mà đang nhờ khổ bộ và con con đàn ná vâng và nhờ khổ bộ con chán đã nhờ khổ bộ có phụ rịch đã nhờ khổ bộ có phụ con chán nhờ Bọn nó mới xong phép chính là phép luôn đấy